solo si ndaje ni dañ ko organiser ci biiru jàppale bépp ndaw bi nga xamante ne moom mooy yeewoo fii ci Pikine parce que gis nañ ne kat ndaw ñi bari nañu léegi te ci boo xoolee ci banlieue bi dañ fay am benn taxawaay bu am am solo moo tax ñu ne ñun suñu mbébét duñ ko def lu dul jëmale ko ci ndaw ñi nga xamante ne tey jii bëgg nañ am yenn information yi wala bëgg nañ am yenn service yi wala bëgg nañ tamit ci yenn seen i jafe-jafe ñu leen ciy dimbali mais xamuñu fu ñuy jëm donc looloo tax ñu pencoo ba ñu pencoowee ñu ne dañuy coré dañuy créer benn kuréel ba nga xamante ne dafay jàppale bépp ndaw bi nga xamante ne ci sa wàllu santé mais duñ ci yem dañuy jëmaale aussi ci développement en général parce que bari na ci bari yoo xamante ne ñu koy bëgg a préconiser di ko organiser ci at bi nga xamante ne moom lañ jëm parce que tamit dañ ne développement dafay commencé d'abord ci sa bopp parce que boo fekkee yow nit ki nga xamante ne yow sa bopp amagul yenn bagage yi maanaam sa bopp feesul bépp benn fees bi ci wàllu xam-xam donc li nga bëgg ci pour mën a jëm ci kanam dafay jafe looloo tax ñun suñuy suñuy suñuy mbébét wala lépp li xamante ne mooy suñu mooy suñu jëmuwaay mooy xool na daw bi nan la ñuy def ba jox ay outils yoo xam xamante ne daf koy responsabiliser moom ci boppam mu xam mu xam kan la doon ay aussi tamit li nga xamante ne moom moo ko war tey ak ëllëg parce que ndaw bi moom mooy gérer avenir u tey ak ëllëg aussi tamit parce que am na yoo xamante ne bu la dalee sa rek pour nga mën a assuré say mag dafay xaw a métti looloo tax ñu ne kur dañuy jëmale ci ñun maanaam yokku xarala ndaw ñi yokku xarala ndaw ñi bari na nag ci ay formation ci ay échange ci renforcement de capacité ak yeneen ak yeneen li nga mom moy moom mooy euh, ACDEV tey moom moo jël lepp li nga xam ni matériel yépp mise à disposition ci ñi nga xam ni VS parce que VS bu muy ñëw dafa ñëw fekk fi ACDEV mi nga xamni ak fi di liggéey liggéey bu am importance mais comme ay jeunesse ak ACDEV lañu ñun ñu ñëw aussi tamit accompagner ñom and ak ñom ngir liggéey bi ba taxna aussi lepp li nga matériel la rek mu am ci sonorisation ci seize ci lepp lu mu mën a doon rek ak def moko mise en disposition ci li nga xam ni VS bi wér-gu-yaram le tënk maanaam lépp boo gisee liñ ci dajale wér-gu-yaram la parce que tey ñu ngi wax ci li jëm ci wàllu set bi jëm ci wàllu règle parce que gis nañ ne suñu famille ni ñu dëppoo maanaam yaay yeeg tante yi wala yéen duñ ko waxtaanee ci biir famille et dañ koo war a waxtaanee parce que nit ki lu mu xamul munu koo jëfee nit ki lu mu xamul munu koo jëmale kanam donc looloo tax tey ñu jël temboobu mu nekk thème bu am am solo ñu ne tey dañ ciy waxtaan pour ñaax ndaw ñi yee ba nga xam te ne li nga xam te ne dina ñëw un jour mu tombé ci ñoom dinañ mën a xam kat ne na kat bu ma demee woon Tata Jeanne wala Tata Bassine wala Souleymane wala Ibrahima waxoon nañ ma ko donc nii laay mën a def ba xam te dinaa ci mën a génn at yi dañ ko tënk ci ndaw bi nga xamante ne am na fukki at ak ñeent jàpp ñaar fukki at ak ñeent donc ci ndaw ñooñu la ñuy ëpp lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy intervenir maanaam dañoo gis ne étape boobu noonu bu fa ndaw mi tolloo bi dafay soxla yenn information yi dafay soxla ñu taxawu ko mais taxawu boo xamante ne nag ci lay lay jëm ci wàllu santé am parce que sante moom mooy tënk lépp bu fekkee nit ki loo mënti am loo mën a am jàng loo mën a am xam-xam te amoo wér gu yaram li nga bëgg li nga bëgg yow doo ko mën a am moo tax ñu ne nañ jiital santé waaw dafay des voilà wàññi boo gis ci benn la tàmbalee moo tax ñu ne tey dañuy commencé ci banlieue bi mais bëgg nañ at bii ñu dem ak bii ñuy dem ñu xool les coins les plus reculés du Sénégal ñu dem fo parce que xam-xam bu doy xam-xam boo ko mënti yóbbu wasaare ko donc tiyaaba nga si jëlee ak kii yooyu mu ngi suñuy mbébét ñu dem fépp foo xamante ne Sénégal pourquoi pas en Afrique pourquoi dans le monde en général ñu dem parce que ñu bëgg ñu yem Pikine bëgg nañ tas affaire bi mu dem fu soree sori sori ba nga xam te ne lépp bépp ndaw bu soxla xam-xam te amoo foo ko jëlee ñun dinañ dem pour pour yóbbu la pour jox la xam-xam mais ñun si lu ñu jëmbat mooy nit ki mu gëm boppam mu téye boppam parce que abstinence la ñuy prôné waxuñu kenn da nga dem def lu la neex parce que bo xolé ndaw bi parce que dañ nan fagaru mo gën faju ñun liñu jël liñu liñu jital moy fagaru bi manam nan lañuy def ba nga xamantene ne ndaw mi lepp li nga xamantene ne ay obstacle la lu jëm ci brok ci grossesse précoce wala lu jëm ci walu ñeexital yo xamantene ne fay yaq aduna ci lool lañ koy gar ba nga xamantene dina am ben prise de conscience am plus de responsabilité ba lool nonu da nga koo ne du ko mëna du ko mëna dal manam ñaax ndaw ji ñaax leen ñu xam ñoom ñooy kan lan mooy notion gëm sa bopp parce que tamit nit ki da ngay gëm sa bopp boo gëmee sa bopp am na yu bëri dalay jombe parce que boo jombee yenn yi rek maanaam yow gëm sa bopp ba lii duma ci yem effectivement ñun prévention la ñuy jiital ba nga xamante ne ndaw bi dinañ ko ñaax ba yooyu noonu ci on avait un partenaire un pa c'est une ONG américaine mais le projet a pris fin mais c'est le chef sénégalaise, qui veut pérenniser euh, l'activité en laissant les espaces conseils.